gën a bëgg a jël lu ko lewul walla bëgg a moy non seulement day dépasser yooyu waaye day yegg ci dayowu dëkkee sant te dootul xaram yàlla dootul dogal lu metti ci xolam yàlla dootul dogal lu def jeexantal ci xolam loolu yomb lu dee du ñàkk du fitna du lu ñuy ragal dara yëngalu ndax yàlla doomu ko lu mu ñàkk du ko yëg maanaam du ñàkk dara bu tiit du am dara yi bég ba fàtte yàlla ndax benn mbég la am jox na ko yàlla benn bëgg-bëgg la am bëgg na ko yàlla loolu yombul te ki yegg ci dëgg dëgg ragal yàlla dayo bi ni mel lay am mu dem ba ay jëfam benn seede lay am sunu borom wutul seede ci waxam ak jëfam ku dul yàlla maanaam li muy def na ko yàlla gis rek bu nit ñi gërëmee baax na bu ñu gërëmul seen affaire waaye moom ngërëmu yàlla lay wër nañu ko alquran di jàngale wallahu wa rasuluhu ahaqu an yurduhu in kanu muminin dëkkee sàkku ngërëmu yàlla ak dëkkee sàkku ngërëmu yonent te benn la ñaar yooyu benn la ngërëmu yàlla muy ngërëmu yonent moo tax gis nga bàmmir ji benn la ko def waxul an yurduhuma te dane wallahu wa rasuluhu bu doon kuy waxi arab a xaqu an yurbuhuma nga wax waaye ngërëmu yàlla mooy ngërëmu yonent yonent du gërëm lu yàlla gërëmul lu yàlla gërëm yonent gërëm la a xaqu an yurduhu in kaanu muminin mu ne dëkkee wut ngërëmu yàlla ak bu yonent te benn la bëgg naa dina ndéem way gëm ngeen loolu rek mooy lii yàlla loolu rek mooy lu yàlla dëgg la nag doomu aadama def lu neex nit ñi danay def ngir nit ñi kontaan waaye da koy def ngir yàlla maanaam defu ko ngir am lu jógee waat ci nit ñi dellu ci ñoom mais da koy def ngir jaamoo ko yàlla ci jaamu la muy yëg ne bu ca bégalee jaamu yàlla yi yàlla bég ci moom mu bégal ca jaamu yàlla waaye xaarul ci jaam yi ñu tagg ko mbaa ñu fay loolu mooy def te yàlla def lu ko defee nee na kii am dayo ragal yàlla dootul am nëbbu ak fee ndax yàlla lay wéttandikoo wéetee bu wéetee ak bu wéttandikoo jëfam ak waxam yépp benn la maanaam bu lëndëm te lu ñaaw foofu la ñu sunu borom di woon ñu yegg fa ci dayo bu nit ka yeggee nag day dem ba yëg ne yàlla rek fi nekk te moom rek mooy dogal te li mu dogal rek mooy am su boobaa dootul mere kenn dootul xas kenn parce que xam na ne lépp ci jënn jëmm jooju la jóge subhaanahu wa taala ñene kon ñu fàttaliwaat rek ne ñi ngi ci weeru koor dëgg la ñuy tamal suñu bok jaamu yalla ak di xif ak di marba waye nee itam ñuy fexé di melowoo ci melokaanu suñu borom yi subhanahu wa taala nee bok na ci benn tomb ñu denkante ko ci lu gàtt yërmande suñu borom mo tuddu aji yërëme ji borom moy ki yërëme loolu melokaanam la jikkoom la mu di ko jëfee ci ay jaamam sopp lool jaam ñi roy ko ci bareb yërmande boobu moo tax mu ne afshu taraaxuma baynakum warxamul aramila wal wal banaata wal yataama wal masaakin bal irxamu man fi l ardi yarxamukum man fi sama wa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam arrahimuuna يرحم يرحمكم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء انت يا محمد نينا ما نغي لين دي دنك نين يرمنتي na ngeen yërëmante ci seen biir mu ne woy yërëme yi ñi nga xam ne dañu dañu dañu am yërmande ci jaamu yàlla yi mu ne yàlla di leen di yërëmal الراحمون يرحمهم الرحمن يعني ني يرم جامو يال سونو بوروم مولين دي مينغول يرمان دي بوكو مون كون نك يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء مون يرم لين ني نين فيتي كاو يين ndax ñi leen fété kaw yeen yërem leen wala bok yërem leen ñi leen fété suuf yeen ñi leen fété kaw yërem leen yërëm leen waa suuf waa asamaan yërëm leen yërëmal ko tane ku la tane yërëm la yërëmal jaamu yàlla yàlla ci boppam yërëmal la ko len sunu borom subhanahu wa taala nee na walmalaikatu yusabbixuuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruuna liman fi l ardi ala inna allaha huwa al ghafuru rahim len sunu borom nee na sama malaayika yi du ñu dañ di bàkk yàlla ak di ko sant ak di ko tag di ko jaamu waaye di jéggalul jaamam yi ci suuf ñun malaayika yi di ñu jéggalul yàlla ci turu la bare yërmande ci ñun bare yërmande malaaka amul li ko yàlla sant mi ngi ci parce que sunu borom moo leen ko seedeel ne yusabbixuuna bi hamdi rabbi والملائكة يسبحون بحمد ربهم نقول ننا ملاك لما لين سنت نجاج موي فنيو تولو نجاي باك يا واي ويستغفرون لمن في الارض موي دي نيو جيغلول يالا سلاي ملاك يي دي نيو جيغلول يالا كي توغ دي ني توغ من كون نيتا كاو يرم ba ñi ngi lay ñaanal njëggal ci yàlla te bu ñu ñaanee yàlla yàlla na ko mu ne kon yow itam ñi nga tane yërëm leen mooy ñi la féete suuf yow it yërëm leen ala inna allaha huwa alghafuru rahim nee na yàlla mooy yërëmekat mooy jéggalaat ko subhanahu wa taala nee na rahmatuna li baadin wa tarahamuna وتراحمنا فيما بيننا من أعظم ما نستجلب به رحمة الله لنا وبنا في الدنيا والآخرة neena yërëmante gi ni yërëmante suñu biir moo gën a gaaw ci bij ci yërmande yàlla mu sottee ko suñu kaw di tàllal yàlla loxo yàlla ñu yàlla yërëm yàlla ñu yàlla yërëm yàlla ñu yàlla yërëm nee na baax na de waaw di ko ñaan baax na de waaye nee na am na lu gën a gaaw ñam la lan la mu ne mooy ngeen yërëmante ci seen biir mu ne yërëmante gi ngeen di yërëmante ci seen biir dafay xëcc yërmande yàlla ci seen biir moo ëpp doole ngay toroxal nit ñi te di ñaan yàlla yërëm nee gi ci seen biir bokk na ci li gën a li nga xam mën na leen a yërmande yàlla mu sotte ci seen kaw te yërmande jooju moo ñu may ñu toog fii di jaamu yàlla yërmande jooju moo ñu may tey ñun ñëpp ñu xëy mën a woor te kenn yëgu waaye ku ne xam ne ni yàlla bindi nit mu xëy lekk duggul ci biiram naan duggul ci biiram ba jant bi so bu dul woon yërmande yàlla day dee parce que jëmm ji yàlla def ko bind pour muy consommer bu consommer moom naturellement daa war a dee waaye yërëm gi mu yërëm jàmm ñi tax na daanu ko def ba jant bi sax te am na ñoo xam ne nii sax naan ndox sax duñ ci jaar nga ne nee na itam bu ngeen yërëmee ñi leen féete kaw yàlla yërëm leen sallallahu alayhi wa sallam moo ne arrahimuuna yarhamuhum rahman yarhamu man fi l ardi yarhamukum man fi sama man laa yarhami naasa laa yarhamuhum mu ne waaye ku yërëmul jaamu yàlla yàlla du yërëm na loolu rek nga ciy déggee mooy ku amul yërmande ci njabootu yàlla gii nee na yàlla du la jagleel yërmande te ku àndul ak yërmande yàlla fi ngay mujj